Ousmane Sonko ñu dàq ko ci liste électorale yi loolee nag moo nekk xët bu njëkk di journal bi de l'Observateur tey ci alxamis ji ñoom nag ñu sukkandiku rek ak rëkk-rëkk yi ñaal Ousmane Sonko ku wàllum yoon ñu ci xam xamle ni rek ki nekkoon jiit ci Pastef mënatul wote bay sax éligible ci élection yi ñu ma dëgmal mu nekk lu nga xamante ni Marie Rose Faye ci Pastef weddi ko ba mu set ba noppi di ko naqarlu le président Ousmane Sonko est bel et bien éligible maanaam Ousmane Sonko dara gàkkalul tey jii mu mën a doon candidat ci élection présidentielle 2024 amul benn procès boo xamante ne teg nañ ko ci noddam boo xam ne procès boobu am na jeexital bu war a mën a tax mu euh, euh, nekk mu bañ a nekk candidat parce que procès yooyu jeexagul. mu nekkoon invité ci avant-première de la mi-journée ginnaaw ba mu noppee ci bile émission nag moom mi nga xamante ni nag dafa bokk ci ñu yor kàddu parti bi di rek dëggal seen bëbët nar a xeex li ñuy woowee acharnement di singali bu ñu leen teg. nit ki amatul sax droit wax li nga xamante ni moom la xalaat wax li nga wax li nga xam ne moom la gis mais on est dans un pays dangereux tey dañ ñuy comparer. pays yi nga xamante ni ñun dañ ko daan gis rek ci télé yi. ba tax ñuy dugg ci siège jàmbur yi di leen di génnee. di barricade ba tax na sax wàccatuñu sax bàyyeetuñu sax Pastef ñu ngi ci coalition yi ñu ngi ci opposition bi dans sa large majorité. Marie Rose Faye nekk ci parti Pastef bi nga xam ni rek dañ ko tas di xam le ni rek métital yeeg daan ya ñuy tekk Ousmane Sonko ak ay naataangoom dafay firndeel noonee rek ñu leen singalee ngir jënd seen tur ci histoire politique bu Sénégal mu nekk lu nga xamante ni ñoom duñ ko nangu ndaxte Ousmane Sonko mooy seen candidat di seen favori ci dëgmal ci février 2024